léegi nag damay bëgg a dimbali sama mbokk sëriñ si ñu bari képp koo xamante ne yàlla dogal na xamoo xaatim. nga def attention nga bàyyi xaatim. ndax benn xaatim bu damm téeméeri xaatim yu jaar yoon mënu koo dindi ci nit gis nga nit ke bu xasee ba sangoo xaatim bu damm mën naa dem wuriwaat téeméeri junni xaatim yu yu defaru pour loola dañ du du ah, da koy tëj da koy da koy bloqué da koy tëj. mi ngi mel ne portable nga verrouillé. waaw léeg-léeg léeg-léeg nga dem ci nit di ko ñaanloo fekk ni yow da ngaa demoon pour tijjee ko waaye moo la gën a tëj loolu lépp parce que xaatim bi mën na damm. voilà xaatim bu damm moom musiba la. parce que day juum. waaw day juum. te xaatim xaatim fi ne nii boo toogoon léegi tëgg xaatim def ci li nga ci war a def donte gaynde la wala fu mu mën a ne ci àdduna boo ko ci def boo ko boo ko xëccee mu ñëw. li ma bëgg dindi ci bopp nit ñi mooy xam-xam am na njëriñ. Hmm. alxuraan mooy ndeyi xam-xam yi mooy bàyyi xam-xam yi. waaye li ñu bari nag dañuy jaawale ni la sunguf moo gën a gaaw moo gën a gaaw alxuraan ah, loolu la ñuy wax naan ay ay reen gaaw man boobu bu ñu demee ba nga xamante ne sunguf moo gën a gaaw alxuraan léegi yàlla anamu waaw loolu loolu wax laaj bu am solo la laaj bu am solo la sunguf mënta dem àndut ak alxuraan alxuraan alxuraan mën naa dem sans sunguf ndax alxuraan moom mooy lépp waaye nag am na fi ne ñu bari lu baree bari gis nga fi ne nii baatum fii siddirin mhm. fii siddirin mhm. xam nga fii sidrin mu ngi ci sóoratu waaqia léegi fii sidrin jooju mooy siddéem mooy garabu siddéem sidrin jooju boo ko calculé cinq cent quatre-vingt-quatorze lay jàpp mooy rabbi habli maalan jazilan bi haqqi mikail mooy 594 léegi siddéem jooju am na noo koy binde di ko di di ko di ko di ko di ko kii fi ne ku jël cent 1111 xobi siddéem siddéem bu ne nga bind ci fii jii bi xaa boo paree def ko saafara sangoo saafara si ba mu jeex xob yi nga nga nga nga nga weer ko ci ker ba mu wow nga boole ko cuuraayu libaan di ko sangoo ku yàlla bind mënu laati am xaalis. ci kalima fii jiidiha fii jiidiha fii jiidiha mën naa maye mën naa maye doom bu fekkee jaare nga ko ci war a ni ko war a jaare fii jiidiha mën naa maye alal fii jiidiha mën naa ubbi nit wërsëg fii jiidiha mën naa tax kenn du la liggéey. Mhm. moom fii jii di parce que dañuy wax ne waaqiyaat ma isa waqatal waaqiyaat ah. laysal waaqiyaat yaa kaasiba mhm. euh, dañuy wax ne di ko jàng dana tax am wërsëg. bon day taxaw am wërsëg waaye fi ne nii bu 99 aaye bu la neexee aaya bu ne nga dugal fa benn tur yàlla ci asmaawulaayil usna ah, boo pare boo paree nga wut 99 xobu new new gi nag boo koy wut euh, suba nga koy wut xam nga yow mu boo ko calculer 56 la uh-huh. new boo ko bindee 56 la booy wut garabu new suba nga koy wut nga boole ko euh, suratu waaqiha boo xam ne aaya bu ne da nga ciy dugal benn tur yàlla ba 99 yi jeex parce que nun 50 la waaw 6 la waaw 6 mim 40 waaw nun 50 waaw 6 muy 56 waaw muy new waaw yow mu yaa gi dix la waaw gi six miim miim gi quarante boo ko boolee muy cinquante six kon suba la ñuy wut new boo wutee new ah, waaw cinquante six boo ko wutee ba pare nga boole kook waax nga xam da nga ko sangoo ubbeeku ok da ngay ubbeeku di am ah, nag boo ko dee sangoo nag da nga koy sangoo fu set sangoo fu set garab garab yëpp am njariñ mhm. nga xam ko wala nga bañ koo xam nga bañ koo nga xam ko wala nga bañ koo xam garab yëpp est-ce que nit ki am na sañ-sañu weddi xam-xam déedéet man du ma weddi ko man fi ne nii bu bu nit ñi taxawoon léegi ni gis naa yàlla du ko weddi ndax nit moom bul ko weddil mukk li mu ne la xam naa ko wala gis naa ko da nga naan yow mënoo ok ci sa maanu mënoo mënuma mënumaa am xam-xam mënumaa jàngale wala defuma ko wala defuma ko loolu moom nit ku nekk am nga sañ-sañ kii ko waaye kenn mënul loolu moom lay bañ wala li amul déedéet loolu moom dama koy dama dama bañ moom ah, du maandute moo tax nit ki nag euh, ragal yàlla rek boo ko defee li ittaqullaa wa yuallimukumullah mm-hmm. boo boo ragalee yàlla rek yàlla di la xamal mm-hmm. léegi nag li nga xam ci xam-xam xam-xam moom heure boo ko joxul nit ñi wallahi al azim faatu rek jox ko suuf si waaye foog nga a génne faaw nga génne ko mu jëriñ d'accord waaye nag am na yoo xamante ne nag yu nëbbu la am na yoo xam ne kenn du ko ci télé bi non non non